tey focus société ñu jagle leen benn reportage yi ñu yeewu ci unité 22 bu Parcelles Assainies ñoom nag euh, nee ñu ci ay jafe-jafe la ñu nekk ndax xam ngeen di liggéeyu tee bi di bus rapide transit euh, jaare noonu nee nañ dafa am loraange yu bëri yum leen jural ñu ne yenn ci machine yu ñu doon utiliser foofu tax na ba yenn ci seeni kër dafa am ay xar-xar wala yenn saa ñu dem ba yenn daal di daanu ñoom euh, ñu ci tuumal kon étude bi nga xamante ni moom lañ dénk liggéey bi di conseil exécutif des transports urbains de Dakar ñoom nag nee nañu wàllum ndàmpaay gi du ñëpp ñoom ñoo ciy jox jot dafa am ñu ñu wax ni ci wàllum critère ñoom lañ ci euh, jébbal subvention wala bokk ndàmpaay yooyu le reportage Abdoulaye Diop. Mariétou Fall di ci néeg bi nga xam ni frère moo fi dëkkoon waaye mu génn fii ci màggalu Touba. ci la toxu li ko waral nag mooy lii. longue date dëkk na fi jour màggal la dem màggali rek ak ay doom ak jabaram. dal bi daanu ci kaw lalam dañ ko ko photo yónnee ko ko Touba mu ne ko bàyyi leen fa ba mu ñëw ba mu ñëwee mu génnee ay bagage am ci la tuxu dalu néeg bi nag am ay xar-xar waaye kenn amu ci ay gaañu gaañu moom jigéen ji nag lii li ko waral lépp mooy ci ginnaaw liggéeyu te yi fi nekk kër gaa ngi nii boo la a du la faale boo la ñetti yoon ba ñeenti yoon damaa woote téléphone ba mënatuma woote téléphone bu ñu wàccee ci deuxième étage fii tamit salle bi nga xam ni mëbble nañ ko mu am tamit ay xar-xar boroom kër gi nag ni ñoom ci danger la ñu nekk. xar-xar yeeg ñoom seen yooyu yëpp dañuy doon jéem di seet ba xam ndax dinañ ko mën a réparer wala déet comme amuñu moyen nag pour toj defar lépp complètement dañuy obligé di ko racciste wala ñu seet naka la ñuy arrangé rek ba mën a dëkk loolu daal mooy suñu problème ba. ci ginnaaw kër gi nag leneen lu mel noonu nga fay fekk kii nag mujj benn bis ñëw rekk fekk néegam mel nii. gis nga tiyaas yi lépp daanu lépp daanu mu ngi nii lépp daanu pelebeel yëpp yii bu fa fekkoon sama sama njaboot da di faat boobu lay gën a métti ah c'est pas normal ah. dama dama tiit bu fi si sama jabar dafay tàmba di tëdd si lal bi ak sama doom du ñu génn ñoom du génn di seetaan télé ah, mais sant yàlla ba mu yemee fii. moom tamit nee na li waral lii mooy liggéey yi nga xam ni BRT ñi ngi koy amal. dem si ñoom ma dego na ma woon leen sama néeg bi wàcc na yaa ngi dégg si la ma la si la ma ne dinañ la boole nit bañ fi ñëwee ñu xool. gis affaire yi ak chinois bi Fofana ak madame Seck nee nañ machine bi mënul mënul agsi fii machine mënul agsi fii te machine boo xam bu riiree boo demee ba côté vingt quatre da koy dégg. ci beneen kër fii fii tamit ni loolu moo ko dal ci semaine bi weesu ba dal bi commencé di wàcc. rek démb daal laa gis ma loolu noonu jékki rek daal di wàccal boppam. mu nga noonu ay vers midi une heure. waaw naka ngeen def. Ah, ñun kay dañ koo jël ton xeer yi. mais vraiment causé nañu nag du tort waaw vraiment parce que machine bi buy riir moom nekk doo am jàmm ba doo am sécurité déjà kër gi yëpp ay vibré salal bi nga tëdd sa day vibré ba da ngay mujj génn sa néeg wuti foo laaxatu parce que wóoru. nee na day dem ci liggéeykatu BRT yi wax leen li nga xam ni moom moo dal ci këram gi dañuy ànd ak moom ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo yàqule ci quartier bi ngir seeti. ñi liggéey ci beer teeb yi bi ñu ñëwee nag li ñu wax mooy machine bi mooy def bruit bi nga xam ni moo tax yenn dàll kër yi di tàmbali di daanu. ñoom liggéeykat yi nag nee nañ loolu mënuñu ci àddu boole nañu ak ki nga xam ni moo jiite seen entreprise mëni nañ waxtaan ak waa conseil exécutif des transport urbains durable di waa CETUD ñoom nag ñu ni duñ ci bari wax ndax képp nga xam ni am na ci loraange na jaar ci procédure bi ndax li fay am lu leer la te képp nga xam ni am na fa loraange dinañ ko mën a dimbali. ci ginnaaw bañ fa jaaree waa CETUD ñëw nañ fa waaye ba léegi ay dikk rek lañu amagul. ngir amaat lu gën a leer moo tax ñu dem dajal tey ci altine bi ak préfet moom lu mu leen wax mooy nañu xaar ba semaine bii di ñëw ngir ñu mën ci am. lu gën a leer merci beaucoup Abdoulaye Diop ci reportage bi Chérif euh, gis nañ ko mu ñu yeewoo unité 22 bu Parcelles Assainies euh, ñoom euh, liggéeyu BRT bi bañ ko commencé yàgg nañ ñu ne moo leen indil ay jafe-jafe gis nañ image yi nga xam ne effectivement ni ko benn chef de famille bi waxee lu doy waar la ndax dal bi wadd nee na bu fa fekkoon ay nit njabootam instant yi kenn waxatu ko waaye gisuñu tamit xañ na li leen gën a metti mooy ay interlocuteurs ñu ñu mën a waxal ba ñu wax leen lii nii effectivement ndax rouleau compresseur boobu ñu gis moom moo indi jafe-jafe problème de protection civile parce que bu fekkente ni askan wi nga xamante ñoo dëkkandoo ak travaux yi dem nañ ba seen ay dal di daanu hmm. loolu buñ ci waxul musio mën naa am parce que li ñu gis muy séddee bu fa fekkoon ni tey caaf euh, daal di xam surtout ñi nga xamante ñoo dëkk Grand Médine euh, ni nga waxee noonu. ñoom it euh, chaque fois ñi na diis goo hmm. nga xamante ñoom ñooy waaye CETUD ak seen i partenaires. Hmm. defoon nañ benn étude ba xool ñi nga xamante ni ñoo impact yi hmm. ak ñu yor ci yoon ñi nga xamante dàmp nañ leen ñu mën a dem wala yëkkati leen parce que lii lañ doon bañ mais dafa mel ni kon des na parce que li nga xamante ñoo nekk boobu léegi ñu koy dund et war nañ indi saafara parce que lii buñ joxul mën naa jur musiba naar la boo xam surtout problème interlocuteur parce que yu mel nii bu amee problème interlocuteur lañ gën a mën a poser même le préfet de Dakar aussi am na ci responsabilité parce que moom moo nekkoon ki nga xamante ah. euh, di superviser les travaux yi jëm ci wàllu mais li gën mooy même Ablaye pour mu def document bi ñu ngi ci jànkoon nag ay jaaf jafe mm-hmm. te saafara si moom mooy déjà ñu arrêté déjà les travaux pour mën a euh, dimbale nit ñi ñu defaraat seen kër parce que lii buñ ci dundee. Mm-hmm. ak ay dal yuy daanu bu fekkee nit musiba Cheikh. Mhm. naata mu doon lu doy loo xamante nii war nañu mën a bàyyi xel bu baax a baax lenn ci jafe-jafe yoo xamante ni askan wi dañ koy dund. parce que ñi nga xam ne euh, tabax nañ seen kër boole seen lu lépp loo xamante nii donc euh, am nañ ko tey bu ñëwee yenn ci ay liggéey naam euh, intérêt commun la mais bu taxee ñoom itam ñu am ci ay yàqu-yàqu loolu itam. day doy waar loolu day mujj doon saafara bu mujjee doon li nga xam ne nag. moom moo di jàngoro exactement. Mhm. donc je pense que war nañ gëstu indi ci ay ñoo ci jot a lorile ñu xool nees def ba daal di leen di euh, jàppale jafe-jafe yi nga xam ne liggéey bi moo ko jur mhm. ñu daal di am ay saafara mhm. alaaji Malick te li leen di tiital mooy nee nañu wàllum ndàmpaay gi daanaka du ñëpp lañ lañ koy jox te moo ne am na ñoo xam ne yelloo nañu ko mais dañoo ne condition yi bu ñu ko remplirul duñ leen ko jox waaw xam nga euh, bu ñuy def euh, tracé bu mel nii mhm. dañuy ñëw xool fii BRT bi war a jaar bu fekkee ni yow sa kër dafa nekk ci emprise bi mu war a jaar mm-hmm. ñu ne la ay la yéwén yow day dinañ la toxal waaye dinañ la dàmb mm-hmm. autoroute à bi ñu koy def noonu la woon mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñoom lañu PTR bi noonu mais ñëpp dañ leen a jox li leen war a jox jox leen ay dele ñu dem tabaxi feneen dëkki ji fa maintenant euh, leneen li ci des mooy li xew nii moom machine boobu naata ñun ñëpp xam nañu ni fu mu riire yow mi dox ci mbedd mi sax da ngay vibrer. Hmm. waxuma laa ak bâtiment yi ko jege. <laughs> parce que am na doole doole bu nga xamante ni rëg-rëg jooju bâtiment bu mu jàpp dina ko xar. bu hmm. fekkee ni bâtiment ba taxu koo dëgër noonu. maintenant li ci des mooy ñi nga xam ne impacté wu nañu nañu dem ci yoon. parce que hmm. affaire bi du ay wax ju bëri. yàqal nañu la utal huissier mu constaté ko. nga dem fi nga war a dem ci yoon topp leen ñu fa ñu ñu fay la. wala ñu def bien avant loolu je pense que il faut que ñuy def tamit ay études ay jàngat yoo xam ne day wane effectivement que. Mhm. liggéey bi ñuy amal. moom moo moom moo moo waral fissure yeeg yooyu laataa yooyu voilà. 7h40 euh, oui 7h40 jot na dañuy ñëw dem RFM tey jëlee ñu dalal Pape du Tunkara